fas yéene dugg ci oto bi def tour ak ki nga xamante ne moom mooy mobile 2 dañuy dugg moomoo ànd tamit ak techniciens yi dem seeti ko Grand Yoff ànd ak moom wër dëkk bi waxtaan ak moom ci combat waaye waxtaan ak moom tamit ci àdduna en général parce que moom xam ngeen ko moom moo ngi noonu rek moom dafa mën a wax waaye ak lu mën a xew dinañ waxtaan ak moom lu yaato yaatoo yaatu ci bés bi le 25 juillet incha allahu rabbi ci arène national ak rente DKR di ci ànd nag yaakaar na ak waa tap tab seen ci luttetv.com. ak lu mën a xew le 25 décembre benn dal la ci biir dal yi moomoo ñu dugg joote bi salaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ngi suivre seen site internet luttetv.com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare comme niñ leen koy defee saa su ne rek à la une ngeen ko doon am chaque mois benn yoon waaye à la une nag yaakaar naa ne foog mu ñëwaat di ñëwaat di ñëwaat ndax dafa am lu ko waral benn date muy le 25 juillet incha allahu rabbi ci arène nationale ak rent DKR ñu tëgg 10 grands combats wala leen nag ci benn journée mu ne mu nar nekk le 25 décembre incha allah moo tax ñu defal leen à la une di ngeen ko amaat nag ay yooni yoon ba combat bi jeex incha allahu rabbi ñu leen di soog a defal comme ni leen ko doon defalee tey rek ñu toog ak mobile war a ak moom ñëw commencé ko buntu këram dugg ak moom Grand dem ba fa nga xamante ne fa la nar a jàmmaarloo ak adversaire am di buur Sine ñu war a waxtaan ak moom ci quatre pages yëpp dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu bokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom dugg ak moom biir Grand Yoff jaar ak moom fi nga xamante ne jaar na fa ci métier ko defee ñuy waxtaan ak moom mobile maa ngi lay nuyu di lay jaar. borom Simo King ay eh, nga may de. waaw asalaamaaleykum Lamine maa ngi lay fay hmm, di nuyu waa Lit TV ak seen i abonné ñëpp vraiment di rafetlu lii a ah, di wax ne lamb lii la soxla innovation parce que tamit chaque jour nit ñaa ngi jooy lu nekk sponsor amul ay làmb dafa dee dafa lii. mais bu ñëpp defee effort na Lit TV di créer ay innovation rek amaana li ñuy jooy ne daf fee jóge mun naa dellu si. Mm-hmm. parce tamit sponsor yi nga xam ne ñoo bàyyi lii rek lañ manqué ah maanaam ñoom seen produit dañ koy bugg dugal ci loo xamante buñ ko gisee dañ mm-hmm. yoo xam ne dañ ko bu ñu gisee benn euh, site bu ñu waxee moo fi jiitu mm-hmm. mais bu ñu gisee ne moo fi jiitu tamit te mi ngi teg ay jéego yoo xam ne li ñuy jooy mën na koo indi a jàll doon gis mais ci yeneen facette parce que demoon nañ ba jàpp ne làmb yelloowul toog ñu koy defal yu yu siluse yi nii wala yu mel ni mais kon voilà kon bu ko gisee Lutte TV ne pourquoi pas lamb. Mhm. ñëw imposé ko parce que tamit Lutte TV fi mu ne nii ñu toll nii Sénégal ku ngeen bëgg a invité invité ko. Mhm. kon émission bi mënoon ngeen ko am ba pare am ci beneen idée bu bokkul ak làmb maanaam di ko invité yeneen autorité wala yeneen kilifa mais làmb ngeen ci xalaat mhm. parce que tamit jàpp ngeen ne li ngeen doon làmb leen ko defal kon delloo si ngeen ko ci mhm. ñu koy rafetlu vraiment di ñaan tamit émission bi lépp lu ñu fi wax rek yàlla doon njëriñ amiin inshallah eh, di wax ne lu ñu fi waxit mu dëng nañ nit ñi comprendre xam ne ay doomu aadama rek lañ jërë ngeen jëf koñ bi ñu nekk mooy fan ci ci ci Grand Yoff waa fii mooy cité millénaire ndem si yàlla booy sikoor yi ñu koy wax fàllu moo koy ñaanal yàlla na ko suñu borom xare àjjana mm-hmm. fii mooy Cité Millionnaire mm-hmm. fi nga juddoo Grand Yoff waaw man fii laa juddoo fii laa yoroo laa màggee kon yow fii rek nga xam fii nga fekk baax fi laa fekk fii laa baax fii la ba baax fekk mm-hmm. maa ngi juddoo fi Grand Yoff fu ñuy wax Arafat ko ñu maa ngi màggee fu ñuy wax seen yee fii rek laa xam ko ñu àjjana ak Senzala dafa sore wala non pas tellement sorewul ko ñu war naa neex de waaw neex na trop wax dëgg waaw fa laa juddoo ah ku ñu àjjana nag ku fa juddoo moom naa ne àjjana nga war a dem. waaw wax dëgg yàlla incha allahu rabbi yàlla na ko yàlla def. amiin amiin amiin amiin. léegi dama bëgg nag ñu doxantu Grand Yoff. Hmm. ma xam sa jaar-jaar fan nga jot a jaar. ci biir Grand Yoff ndax jàng nga. waaw jàng na jàng ah. naa école. Uh-huh. Hmm, jàng naa école. jàng nga école. Hmm. jàngoo jàngoo arab. defoo comme ni ko ñëpp def naa daara. daara. parce que dama juddu nekk benn booy bu xawoon tribul xam nga. Mm-hmm. Mm-hmm. demee noonu paa bi tamit moom yàlla da ko defoon moom sam pap taalibu sëñ Basiiru la. mooy moom doomam bu mu am da ngay dem daara. dëgg moom esprit boobu la mos a am. fan fan man maa ngi woon Touba. ah Touba yaa Touba nga def foofu. Touba presque def naa fa dix ans. ci ci daara bi waaw. kon sori nga ci ci alxuraan. ah wax dëgg yàlla suñu borom dimbale na ma bu baax a baax. mokkal nga wala mokkaloo. nga alxuraan. waaw wax dëgg yàlla macha ah suñu borom dimbali na ma ci bu baax a baax. ñaata ñaata nga def ci daara mokkal. Ah, man. bi nga defee ci eh, ci daara ji at nga mokkal ñaata yoon nga wàcc. ñeenti rek. Hmm. Mhm. wàcc nga ñaata yoon soog a soog a soog a soog ñibbi si ñaari yoon. ñaari yoon nga wàcc. soog a ñibbi si waaw. Ah, ah, ba ba mokkal alxuraan mobile nag vraiment nag grand fi a waroon nekk imam bi nag. <laughs> mais damaa jubadi <laughs> boo xamee jubadi boobu yu bëri mooy loolu loolu. Hmm. léegi bi nga jàngee ba mokkal lan moo tax demoo nga jàng ci xam-xam comme ni ko ñeen ñi di defee. waaw mooy li ma la wax rek man tribul bi dafa xawoon yàgg ci man nekkoon benn boy bu dërkiis man tey daara ji li ma fa ëppoon li may nekkee mooy jàng weer fàq dem sama yoon jàng weer fàq dem sama yoon man yooyu laa doon def Lamine sama fàq bu mujj bi may ñëw dakaar ah. fàq ñibbisil sama bopp ba dakaar ah. tey laa ko mos a wax barki yonenti yàlla Muhammad def naa pompier ñaari at yoo xam ne xaw ma fan mooy Grand ok pompier. koñ bii ñu nekk nii ki ma foree pompier xam ma boobu maa ngi nekk xale. Hmm. fii la dëkk daraan jaay ay montre moo ma mos a romb ma taxaw mu jaar sama tur Ablaye Wade ma bañ koo faale parce que boobu jàpp naa ne comme période boobu sëñ Saliou dafa wutoon ay nit yoo xamante ne nii ñoo daan war ndongo yi fàq yi buñ gisee xale bu tëdd ci mbedd mi dañ lay jàpp hmm. fexe ba xam ban daara ko jóge yooyu. Hmm. jàpp naa ñooñ dañoo ñëw ba Dakar. waaw mu jaar sama tur ma bañ koo faale. mu am benn client bu muy waxal ci montre rek ma dem sama yoon après nag mu pare topp foofu di ma wër ba gis ma. Mm-hmm. waxtaan ak man waxtaan ak man ba xamal na ma man ak yow ñoo bokk koñ diw mooy sa papa diw mooy sa yaay nii ak nii kooku moom indi ba fii. Mm-hmm. mais def naa pompier bi deux ans. deux ans yi nga def pompier nan ko nan doon defee ak fan nga doon fanaan. waaw deux ans yi ma def pompier dama doon xëy bu ma xëyee dama daan jéggi dem yi mm-hmm. dem yalwaan. mais bu guddi jotaan ñi ngi daan jéggi am na benn terrain bu jàkkaarloo woon en face fa lañ daan fanaan ci biir terrain bi foofu. yow ak ñan. man ak sama yeneen moromu ndongo daara yu fa nekkoon ak ay yeneen booy. ñoom ñoom ñëpp dañu doon fàq. ngeen doon tase foofu di fanaan non ñëpp fa ci ci doon fanaan wala ci. non non ci biir terrain dañuy dugg biir Grand Yoff mais dañu continuer parce que fi nga nekkoon am na solo trop. Mm-hmm. deux ans yi nga def foofu noonu. affaire xale yi affaire xale yi yàlla nga ci jot a jaar parce que xale bu toll noonu fàq deux ans mën na am jaar na ci affaire u Guinz. affaire u sàcc ak yooyu noonu ndax mobile mas na jaar ci yooyu noonu bi ci deux ans yooyu noonu. waaw man nag yàlla dimbali na ma sama ndaw dëngoon naa mais boo doon wax dafa dëng da nga doon wax dafa bëri histoire. Mhm. dafa dërkiis dafa lii mais yàlla dimbali na ma ci tux mosuma cee jaar. Mhm. Guinz it mosuma ko def. Mhm. jël yëfaru jël yëfu jàmbur it yàlla daf ma mosoon dimbali ma jombale ko sama bopp quoi. ci deux ans yooyu noonu daal mm-hmm. yow yow na nga yelwaan rek sa biir di fees. waaw man man boobu laa am ba nii ma toll man naa reeg rek. est-ce que tamit loolu sens la nga nekk xale. Mm-hmm. deux ans nga di ko ànd ak say morom. Mm-hmm. bari meloon nee nañu maanaam nekkoo nekkoo agresseur. nekkoo koo xamante ne chaque jour ñu ngi koy dégg ci yenn coow est-ce que jàppoon ne loolu sens la boo am. waaw sens la rek ndimbalu suñu borom la rek parce que fii yàlla rek a mën a jubal. Mm, te lépp loo ci gis ak yëfi suñu borom la. lépp rek ñun ñëpp alalu suñu borom lañ ku ci nekk nag mooy am lu muy namm ci yow rek. Mm-hmm. góorgóorlu dina ci am tuuti mais ndimbalu suñu borom lay doon. Mm-hmm. bi nga ñibbisee suñu kër di laaj ndax dama fay ñëw ñu leen noonu. Mm-hmm. ñu xamal leen damaa faax mais xamuñu ci lan nekk après bi ma ñibbisee nag mu ne damay delluwaat kooku kon demoon nañ ba jaaxle parce que deux ans tamit du deux jours. du deux waaw ci période boobu ci xale bu ndawee noonu sax. waaw jaaxle woon nañ trop wax dëgg yàlla. Mm-hmm. jaaxle woon nañ trop. mu yóbbuwaat la wala mu bàyyi la fi. mu mu yóbbuwaat ma. nga faaxaat. <laughs> non bu ma yóbbuwaatee ba damaa toog garaawul. nga toog. Mm. ok nga toog ba ñibbisi dugg école. wala avant loolu nga duggoon école. avant loolu dugaloon na ma école mais bëgguma woon jàng parce que bu ma dugaloon école rek man garage laa daan dem. Mm-hmm. ci mécanicien yi léegi dama doon wut ay roulement daan ko toj di génnee polom parce que man dama dama nekk xale rek bëgg affaire mécanique. Mm-hmm. Mm-hmm. mu wut lijjanti ba sonn pour ma jàng mais man mécanique laa bëggoon. après mu jël ma yóbbu ma daara ja. après ma ñëwee tamit ma continué waat sama métier ba yàlla dimbali na ma ci macha allah. ok kon jàng nga métier. waaw jàng naa métier ba suñu borom dimbale ma ma yor ci sama garage bopp sax. man man man man métier nga. mécanicien la. mécanicien nga. Mm. oto lu mu mën mel wala wala wala mécanicien moto. oto. ah oto lu mu mel bu ko andilee mobile. Euh, yàlla dimbale na ma ci xam nga boo génnee niveau Sénégal fii nii liggéey bi amul ay taxaw li ak lii ak lii ak lii ak lii tubaab bi xamuñu caaxaan. waaw Amérique garage bi ñu ma fa njëkk a yóbbu bi ma ñëwee taxaw ñaari yoon laa liggéey patron bi ne leen dama koy embauché ma damay ñibbi. ok sa voyage États-Unis kon loolu la nga moom yàlla dimbale na ma ci macha allah parce que moom laa xam. oto laa xam mécanique laa xam wax dëgg yàlla. léegi métier boobu est-ce que est-ce que mu ngi lay fay nii non wax dëgg yàlla instant defatuma ko arrêté naa ko. Hmm. xaw na def benn diir bu gàtt. parce que tamit làmb des fois mu toll foo xam ne daf lay xaw a occupé tellement que ba nga xamante ne nii. Hmm. te da ngay nekk ci tamit yeneen projet hmm. da ngay dem ba tellement charge yi ngay am day a bëri. ok léegi nañ dem fi nga jàngee métier foog ñu doxantu ba foofu. ndax aci mobile gis nga ko dafa mel ni place bii moom mooy bi nga jàngee métier. comme ni nga ko waxee. lan nga fi fàttaliku. waaw lu bëri lu bëri wax dëgg yàlla fa lañ fa lañ jàngee métier xam nga. Euh, defee fa ndaw si lu bëree bëree bëri mooy li ma la doon wax sax nekkoon ay xale yu xawoon tribal yow daal foo dem indi fa ay problème waaw parce que boobu xam yëfu xale rek da doon nekk benn booy ñu yónni la demal jënd essence jox la 5000. waaw sa esprit li ci nekk mooy dóor yi dem ba suba da ngay jaar di jël 5000 yi denc fenn ñëw ne wat réer na. ñu jàpp teg taabal nga dem ñibbi ay yeneen ak yeneen boo koy fàttaliku après ay réel lay def quoi. Mhm. nekk xale tamit bëggoon jàng métier mu jaral bëggoon teel mun dawal mu jaraloon ñu ko dañ daan yeewu 5 heures du matin 6 ñëw garage balaa kenn di ñëw. Mhm. mais ay paaka coupe ongle lañ doon jël dañ ko doon defaral suñu bopp. dañ ko doon mhm. liimee ba mu mun a dugg ci pocceeru oto ci neemaan. waaw moom dañ si doon taal oto dañ si doon def lu nekk. ak oto bu mu mun a doon. ñëw sàcc oto bi pour taal rato bi maasale foofu yëpp dem ñibbi. waaw xam si nga xëy si ànd ak gars yi. Mhm. benn jour tamit ñu am ci problème ñu doon arrière mbëkk benn porte lampe mhm. bi gis ñu. Mhm. jour tamit dëgg yàlla. dafa mel ni tamit ñu ngi leen di yëkkati fii nii. yëkkati bi. waa ñu ngi moo fay jaar wala lan ñu ngi leen di yëkkati xaw na métti trop ah. te tamit du neex pour nga ñëw taxaw direct jël défense bu mécanicien yi mm. mais di mën a taxaw tamit ñaan ñi nga xamante ne nii ñoo am doole ba mën a yëkkati ban solution lañ mën a trouver ñi nga xam ne ñoom la ñuy yëkkati mm. xam ne tamit boole leen ci njaboot gi xam ne ci askan bi lañ bokk jëm leen wutal ay mesures accompagnement yoo xam ne bu ñu leen yëkkatee fii xëy na nañ am benn solution bu ñu leen mën a teg boo xamante nii mooy loolu mm. nga jëlee leen ñu jàddaat feneen li gënoon ba gënoon nag comme lépp Sénégal la ñu xool benn mesure boo xamante ne nii dinañ ko mën a jël ne lii nii la deme lii nii la demee métier bu nekk ñu wutal ko bërëb bu mu mën a nekk. xëy na dina xaw a noppal gars yi tuuti quoi. ban jafe-jafe la population Grand Yoff di dund. nga mën leen ko waxal. jafe-jafe bi population Grand Yoff dund insécurité bi ci la bokk. jafe-jafe bi population Grand Yoff di dund mooy gox bi bi ñu juddoo ba nii ñu toll gisaguñ ci benn changement boo xam ne mun nañ see teg baaraam ne lii la. Mm-hmm. ak li ñuy dégg ay autorité ci Grand Yoff yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. mënuñoo mm-hmm. teg suñu baaraam ci lenn ne lii Grand Yoff na ci. beneen bi ci topp mooy ñu dëkk ci benn gox boo xamante ne nii tey lu ñu ne Grand Yoff. Mm-hmm. lii am fépp mooy am Grand Yoff mais bu amee Grand Yoff day mel ni mosul am Sénégal. tellement que niñ koy médiatiser tellement que benn musir bi ñuy bëgg jox Grand Yoff wala benn image bi ñu koy bëgg a jox te Grand Yoff demeewul noonu. ay nit ñu baax ñoo fa dëkk. dëkk noobul la. lu ko la. jafe-jafe daal manque de sécurité. Mm. nga ni état état est-ce que mu ngi fay dugal loxoom. waaw est-ce que est-ce que autorité yi fa nekk noonu am na ñoo xamante ne fare nañu ak état. waaw waaw am na autorité yu fare ak état parce que tamit ku mel ne Adama Faye fa la nekk. Mm-hmm. di rakk ci Marème Faye Sall ku mel ne Cheikh Bakhoum fa la nekk mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. donc tamit mënuñu taxaw ne état loxoom du ñëw Grand Yoff parce que état du doon moom état ci boobu mooy ñëw di teg ci loxo waa Grand Yoff mhm. mais ñam teg Grand Yoff bu fekkee ñi ngi gis si ñoom ne li li état day yónnee mi ngi egg seen loxo kon jàpp nañ ne état mi ngi dugal loxoom ci Grand Yoff mhm. mais tamit xëy na lépp waxtaan lay laaj parce que mhm. tamit mooy li may wax rek réew mi suñu réewa bu yàqoo ñun la yàqul mais ñun mënuñu am fierté wu bi ñu juddoo ñun suñu yaay nekk nañ en état ñun suñu jëmm yi di xuus ak ñun ci ndoxu taw bi ñu judd ñu boot ñu di xuus. Mm-hmm. ñun màgg nañ ba am jabar te nar nañoo faf suñuy doom di xuus. te suñuy doom dinañ bootaat seen i doom di xuus. Mm-hmm. ba tey mënuñu am solution ci loolu te chaque jour dañuy dig a mel ne Paris. man loolu dafa war a jeex Grand Yoff. pour lan moo war a fa mën a jeex lan moo lan moo ko fa jeexal. li ko fay jeexal mooy njiit ñi ban ñoo nax chaque jour ñuy am ak ñun propos boo xamante ne nii loolu lañ mën ci réew mi mm-hmm. parce que tamit lu mën a xew ba mën a xew man jomb naa bu ma waxee Lamine lii bu subaa bu ñu romantee du ma ko xool ci bët. mais chaque jour léegi dafa dem ba tellement que Sénégal diw day politique mais day ragal wax man politicien laa. parce que la moo tax da koy ragal wax boo waxee politicien dañuy wax. waxkat lu dëgg. la ko pour réewam baax. mais kooku waxkatu dëgg la. Mm-hmm. mais la moo tax la ñu jël politique féetalee ko koo xam ne mooy luy wax lu dul dëgg. da ngay toog di wax sax ñu naan la waxu politicien la jarul dóor sa doom. Mm-hmm. ok lii rek la. léegi lan mooy sa taxawaay yaw yow tamit ban taxawaay nga war a am biir Grand Yoff. waaw ñun taxawaay pour naqari yëpp dañ. ñun taxawaay bi ñu war a am Grand Yoff yàlla mu ñuy dimbale suñu doolee bariwul maanaam suñuy moyen yeggul fenn fu mais ñu ngi ciy jéem lu ñu mën parce que lu mën a xew bu mën a xew it li ñu am lu mu mën a toll lu mu mën a doon Grand Yoff moo ñu ko defal. Mm-hmm. Ah, li ñu doon bu ñu jaaree fenn ñu ne mobile la wala tey ngeen déplacé seen oto bii nii ñëw ba sama kër jël si ma pour ànd ak man ci émission Grand Yoff moo ñu ko def. Mhm. kon lu mu mën a doon rek lépp luñ ci mën ñu ngi jéem ci ndaw ñi si suñuy morom ci ñi nga xamante ne amaana ñu ngi ci beneen yoon sax tout le temps. Mhm. jéemuñu leen daw jéemuñu leen rejeté ñi ngi jéem a bokk ak ñoom liñ nekk nekk seeg ñoom pour uniquement mën a xool nuñ leen def ba rocci leen ci voie boobu teg leen ci beneen voie. mais nag uniquement ñun mënuñ jël charge yëpp li tax mënuñ jël charge yëpp looy jëlee nit rek dangay teg ci loxoom loo xam ne dana ko xaw a tane ba nga xamante ne li nga ko bëgg a jëlee dina yomb ci moom mm. parce que tey exemple bi may joxe mooy bu ma fekkoon Lamine di xëy di sàcc heure bu sàccee am mm. ma bëgg a bàyyi loo Lamine sàcc dinaa fexe ba chaque jour ma mun ci Lamine juróomi junni uniquement pour dëpp xelam mun a yomb ci man mais munu kaa baloo sàcc mu ba sàcc ñëw di toog ci man munu ci moom leen mm-hmm. mm-hmm. loolu dëgg bu wér la léegi li nga xamante ne moom mooy carrière lutte simple bi moo la ci lutte simple waa làmb sax laa bëgg wax en général lan moo ci dugal. waa li ma ci dugal dama dëkkoon Arafat mooy koñ bi ma wax ñu koy wax koñu àjjana ma juddoo fa la dëgër un fa la dëkkoon. xam nga euh, fii du Lobatt Fall. waaw Lobatt Fall waaw cité fii mooy ndox yi fii. waaw ndox fi ba taay temps taalibe sangu. <laughs> waaw mooy loolu. dama dëkkoon Arafat benn koñ bi ñuy wax koñu àjjana ma juddoo fa yoroo fa la dëgër fa la dëkkoon. léegi ñu demoon bay wax koñ boobu koñu mbëri. Mm-hmm. man fa laa juddoo fa laa fooyee ñoom la dëggee dañoo amoon foofu ci koñ bi ay poids. yu ñu fa tegoon man dama daan nekk foofu noonu ñoom bu ñu fa nekkul heure yi ñu fa dul nekk ay heure añ yooyu noonu dama daan nekk foofu ne damay jéem a foo ci poids yi doo ko attan ngay kërti kërti foofu. Mm-hmm. léegi nag ñoom ñu doon contacté foofu ci koñ bi. ma daan dem toog foofu di seraan contact. ba benn rakam bu ñuy wax la ubbi fa benn ikiri bu ñuy wax ikiri waalo. Mm-hmm. ñoom Nandi Fall nekkoon fa boobu man mécanique laay def léegi man sama heure wàcc mayu ma woon may dem di entraîner léegi mais dama doon daw liggéey fu cinq heures jotee rek dinaa daw dem toog di seetaan foofu entraînement. léegi naan nekkoon benn nit boo xam ne dafa ma xawoon jaaxal tellement dafa tuuti woon mais ni mu doon daanee ponkal yi jaaxal ma. léegi mu neex ma chaque jour ñëw foofu toog bu ma bu ñëwul sax man mun naa dem ñibbi damay ñëw toog foofu di ko seetaan di ko seetaan loolu moo ma ci dugal après dem am amour bi. ñëw ci Balla ko ne ko damaa bëgg a bëre. mais nekkul foofu loo doon ci ci ci papa. waaw doon ci ay nijaay. waaw doon nañ ko ci suñu côté baay waaw doon nañ ko ci côté Baye. sa pap bi la jur wala. Euh, déedéet ki topp ci moom. Hmm. ki topp ci moom. Hmm. moo doon bëre. champion la woon. waaw wax dëgg yàlla. nan la Alaa Dieng lañ ko doon wax. fi ñu dëkk ñu ngi ko doon wax Dieng dollar. Hmm. bu fekkee Ndofane fi ñuy dëkk suñu cosaan ñun loolu lañ ko doon wax. mu nekkoon daanaan. bëre nañ fi bëree bëree ba suñu borom commencé ñu dénk benn tur bi bu ñuy dem dëkk ba nii buñ daan ñëw dañ tellement que teeru bi ñu daan teeru. bu ñu waxaan nag mag ñi dañuy wax naan teeru bi ñu lay teeru de sa baay rek moo ko fi daan am bu daan bëre. bu musaanu jóg fii di bëre ji ay Kaolack wala yenn dëkk yi sept place daawul liggéey transport du liggéey ci dëkk parce que moom tamit chauffeur la woon cootooy la nekkoon mais boo waxee dañ daan wax bu daan bëre ji oto ci moom macha mais mobile moo gën a xam tamit ban jour nga njëkk a takk ngemb mobile takk ngemb ni mu ngi ban jour laa njëkk a takk ngeen bëri ji mbapat loolu de jàppatuma ko tellement que mais maa ngi fàttaliku carrément quoi samay début carrière mbapat waaw parce que sama début carrière mbapat ci ay mbapat tournant laa commencé. Mm-hmm. ay tournant saako ceeb ay tournant carton goros suukar affaire yooyu noonu cinq mille francs mm-hmm. tellement ma demoon ba bokk ci booy ci gënoon ës. li may wax nii ci site laa koy waxee. Mm-hmm. boo demee Grand Yoff gi ma dëkk mun nañ la ko confirmer bokkoon naa ci mbër yi gënoon ës mbapat. Mm-hmm. lu ñu tegal samay morom jël naa ko. léegi nag affaire yi commencé ñëw ci ay combat nommé sama premier combat nommé ma daanu ko man ak sama benn benn mbër bu ñuy wax commissaire. commissaire ndeysaan sama waaye la Moussa. Mm-hmm. mu daanoon ma ci nag ma jóge ci loolu nag. yaakaar naa benn defet boobu laa am ci combat nommé. bu ma juumul. Mm-hmm. waaw benn defet boobu laa ci am. ci mbapat bi waaw mbapat wala combat nommé. waaw mbapat combat nommé yi quoi yi ñu bëri ci koñ yi. Mm-hmm. benn defet boobu laa ci amoon. Mm-hmm. loolu ba yan année la. Euh, ay 2012 yooyu yaakaar naa. 2012. kon yow li nga mbapat est-ce bari na mobile parce que yow 2012 normalement fekk na la nga commencé bëri arène. Euh, wax dëgg yàlla li ñu def ci mbapat bu nu ko defoon arène amaana sunu borom heure bi weesu nañ fii nii. wala da nga boole woon mbapat bi ak ak ak. waaw man bëri naa mbapat lu yàgg te bàyyiwu ma bëri arène. Mm-hmm. bëri naa mbapat lu yàgg te bàyyiwu ma bëri arène wax dëgg yàlla. Mm-hmm. ña ña ñan ñoo la daan ci mbapat. mbapat bu fekkee tournant lit simple yi nii. waaw. ñi ma ci xam ko ñoo xam ne ràññee naa leen te mos naa jëflante ak ñoom ñu daan ma. Mm-hmm. Mamadi. Ndiaye. waaw Edouard Dimle que. période boobu tamit dañ ma magoon je trop. waaw ñoo ma magoon ma nekkoon benn booy. Mm-hmm. mais tellement que ñoom amateur simple yi dañ ma doon forcer pour ma bëre si. Mm-hmm. li tax ambiance bi bu ma ñëwaan bëre si xam nga. Mm-hmm. boo ma bu làmb ji yeggaan ay quart de finale yooyu man liñ teg mun nañ ma kaa may bala maa yegg ci quart de finale bi. parce que tellement que amoon naa ambiance. amateur yi soppoon nañ ma léegi nag. xaw ma woon leseeg luur man dama doon ñëw bu ñu bindoo ma bindu. bëre naa yoo xam ne aw ma ki ma tuddee sama bopp muy mobile 1 moom laa doon bindoo licence am. mobile moom laa doon jël licence am di ko bindoo. Mm. Eh, parce que tellement que man ak moom tamit dañoo nuroo dama doon jël licence am bindu ci di ci bëreem ba pat. Mm. demoon nag ba commencé ci ës commencé ci ës mais après ma waxtaan ak benn magu mbër bu mag. Mm. mu ne man daanaan nga am nga bëre bi ba pare liñ gën a jafe ci mbër am nga ko mooy am nga ambiance bi. mais defal sa xel ne lit simple boo ci melee ni nga ci war a mel. pour nga doon mbërum arène day jafe. léegi nag yow yaay def sa choix lan nga bëgg a doon. mais boo tojee làmbu simple ni nga ko war a tojee. waaw mbërum arène doo ko doon. Mhm. xaw ma nag léegi yow lan mooy waral parce que tamit loolu dafa mel dëgg la. ñi ciy ñi ciy bariwul. waaw loolu léegi rek nga ciy gis mu rëcc ci. Mhm. Franc nekk ci yoon. lu mel ni Yékini lan moo tax nekk ci bëre simple ñu koy toj dëgg-dëgg. Mhm. champion yi duñu duñu duñu arrivé ci bëre dóor. waaw duñu arrivé mooy c'est-à-dire bëre li ci ëpp ay booy town na ci nekk te booy town bugguñu bëre kat. ñoom li ñu bëgg mooy booy taw ne ñoom ay maanaam sañ-sañ ay maanaam lii mais boo dee bëri kat dëgg-dëgg. Mm-hmm. pour nga sori ci bëri door day jafe. dañ la dul jël mm-hmm. boo xoolee di nga def quatre années balance benn combat boo xam ne boo ko daanee fi nga nekkoon ngay nekkaat du la yóbbu fenn mooy mbër moo xam ne bëgg a bëre moo la ciy dugal. foofu ngay mujjee. Mm-hmm. tey ku mel ne ay Mamadou Ndiaye yii bu fekkee mbër yi ku mën a rek lañ bëgg dañoo ko boole seen programme. Mm-hmm. Libidoor a ngi nii. Mm-hmm. day bëre cinq ans bëre mbapat ñëw bëre benn un an benn bëre simple. Mm-hmm. pour nga bëri arène problème lay doon. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey bu ñu ko doon wax duñ fi jógee. dañ lay moytu quoi. kenn du la jël. ku mel ne ay Paul Maurice ay. booy booy fay ngi nii da daan bëri arène. mais xoolal bi mu fi teggee benn deux ans dem bëri ji simple. am tour ci bëri simple. koo ne Boy Faye mu ne la bàyyil chef de l'état moo ko jël barki démb. Mm-hmm. waaw mais ki jël chef de l'état da nga war am fierté daan ko. dëgg la ngel jonn mm-hmm. ku bëgg làmb doo jël ngel jonn ah, ngel jonn lan lay def ci làmb loo xam ne bokkul ci làmb. man damay toog di seetaan ngel jonn uniquement damay dugg YouTube sax di ko seetaan. Mm-hmm. parce que man dama bëgg làmb tellement que ne bu ma gisee ku koy dundal rek da xool mbër mu toog 6 ans bëriwul. ñu jox la ko. uniquement yow it da nga koy jël kañ nga sentir war ngaa war ngaa war ngaa dugg ci lutte avec frappe war na a nekk. waaw lutte avec frappe bu ma ko fàttalikoo dëgg bu ñuy njëkk a ñëw di ma indil avance dañoo ñëw sama yaay na leen déedéet kii mënul bëre bëre dóor parce que xale la boobu booy ñaam moo doon bëri Pape Sène. 24 mm-hmm. juillet 2010. suñu waa écurie ñëw ne leen kii mun na bëre bëre dóor parce que mbëri yi muy kontaagal écurie ba di leen daan ñoom ñëpp dañuy bëre dóor te kenn mënu ko cee daan jàppal bàyyil jàppal bàyyi ma dem boobu paa bi ngi feebar tëdd ma dem ci moom ne ko papa man ñii maa ngi bëgg a bëri bëri dóor meer bi neen du ma bëri te ñii am na wutal nañ ma combat. Mm-hmm. paa na ne ma ñeme ngay bëreel ma ne ko maa ko mun sax. Mm-hmm. ñeme ngay bëreel ma ne ko maa ko mun a ma demal nga bëre ji. Mm-hmm. dinaa wax ak meer bi mu dem wax ak meer bi meer bi jàpp ci affaire demee noonu ñaanal man nag ma dem bëre ji. sama première avance bi mu ñëwee sama papa lañ ko yóbbu hôpital. ci lañ ko ci lañ ko boobu mu wutal ma liggéey ville de Dakar euh, biñ ko ci yóbbu hôpital paa baa ngi tëdd feebar ma dem bëre ji bi ma ngemboo di génn sama kër munul jóg sama yaay moo ko jàpp yëkkati ko mu jàpp ci fenêtre bi suñu waa écrit yëpp a ngi taxaw mun leen xaw ma dinaa ko fekkee xaw ma du ma ko mais sama àdduna li ma ci yëpp am naa gëm moom dina ko fajal. Mm-hmm. ci lépp nag ci làmb ji muy def mun na cee sax bañ a mais biir ma ne mu fekk ma fekk mu ñàkk ma fekk àddunaam du ci sonn. te mu ngi tëdd feebar. ah boobu mi ba sonn. ñu may ko loxo mu wax loolu. mu wax loolu. ñu teg ci bi ma bëree ba pare vingt cinq boobu noonu ñu teg ci ay semaine weer bi dee ma dem ville de Dakar moom mu wutul la liggéey boobu mu fay ma. ma ñëw fekk ko mu toog boobu benn mbapat moom Arafat ma jël salaire bi ñu ma fay jox ko mu ne ma lan laay doy xaalis fi ah, xëy na mun nga am soxla ci xaalis boobu noonu xaalis boobu mooy li ko topp ci bàmmeelam ma bàyyi ko xaalis bi dem seetaani làmb damaa yegg ci làmb ji rek ñu woo ma ne ma wuyul seen kër. ma jógee ak làmb ja daw ñëw kër ga ñu ne ma paa bi moo gaañu. Mm-hmm. nii laa lan nga ñu man a fàttalee ci paa bi. waaw xamante ne mënoo ko fàttali nga xam dund nga ko ak moom. ci ni mu buggee woon. heure boo ko xalaatee rek soxal tooy. waaw damaa bokkoon ci doomam yi ko gënoon jege ndax ki mu gën a bëgg ci àddunaam la ma tuddee bu weesoo sëriñam muy sëriñ Touba Ablaye Wade bi may nekk xale sax boo ma daan saaga nii wala nga dóor ma moom mun na muñ nga saaga ma mais bul jaar ci sama tur maanaam doo wax Ablaye Wade ba pare teg ci saaga bi moom loolu rek boo ko doon kii ndeysaan mu nekkoon tamit nit ku ñeme woon njaboot nekkoon ku ñeme njaboot wax dëgg yàlla ba mu bëggoon yar trop trop trop. dafa bëggoon yar sama papa ay nit ñi dañ daan jóge fu nekk ñëw ci kër gi di seetaan si ay xaram loolu bokkoon ay image yoo xam ne dama ko amoon ci moom dama doon yàkkamti dimanche jot parce que bu dimanche xar boo sang rek am nga deux cent génnee xar yi xar yi tellement nu mu doon bëree ci mhm. ko branché raakol bi ci robinet bi di sang xam nga affaire yooyu mu daan jëm tamit daan ànd ak man ma bokkoon ci doom yi nga xamante ne nii man tellement que li ma réeroon ci moom bëriwul lépp man la ko daan def ndool man lay àndal fu mu jëm man lay defal lépp wax dëgg yàlla. am na am nga ay mag wala. waaw yu bari. am naa la gënoon a man la gënoon a kii yoon loolu nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. parce que na ma bu weesoo dem daara ak yooyu moom laa xam moom laa ko nekkandoor moog sama yaay. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaax na la. ñaax na ma demee nañ jom jëmee nañ jàmbaar mais demoon nañ bëgg-bëgg bi parce que tellement que dañ doon seetaan bëri arène mu neexoon ñu période boobu tamit li ngay gis mooy kut kut man war naa ba bu ma rombee ñu ne booy bee moo feeñ ci télé bi démb. Mhm. loolu da doon bokk ci li la gën a yóbbu. yee ñu demoon bëre ji yàlla defal ñu si ndam ñu bëre woon seeg mbër mu ñuy wax doomu waalo. Mhm. mi ngi nekkoon écurie ñoom booy ñaa yaakaar naa bi ñuy bëre ma ak moom si ñoom kooñaa la nekkoon Abim Ndiaye. waaw. moom laa bëreel sama premier combat. Mhm. booy ñaa Pape Sène sama deuxième combat tamit maa ngi ko bëree yaakaar naa ci Lac Rose Pape Tine Sandika ma bëree ceeg Rouge Bordeaux. mais ak Rouge ko daan. maa daanoon Rouge Bordeaux. Mhm. après nga euh, continuer ma kon ne bëreeg Pambaay numéro 2 ñu mas niil. ci ban Ibamar Diop ci Lac Rose Mam lañ ko bëri woon. ñu mas niil Ibamar. du mhm. ko fàtte boobu maa ngi takkoon benn téere loxo bu ñu jàppantee day téye ci téere bi parce que comme période boobu xawoon naa ko saaj doon léegi bu téye ci téere bi day taxaw sama loxo boobu éliminé wu bëree du mën a am. Mm-hmm. ma forcé ko xeex ak moom ba mu bàyyi ma ma arrière génn géew bi tekki téere bi sànni ko. Mm-hmm. duggaat arbitre bi avertir ma ci arrière boobu ma arrière. Mm-hmm. ñu bëre temps bi jeexee noonu arbitre bi jox ko victoire. ma koy félicité ci loolu moom sama waay la. nga jóge fa bëre ak kan. ma jóge fa yaakaar naa bëreek ay Mbaye Dia Diop numéro 2. Mhm. bu booy bambara daan ko. Mhm. waaw bëreeg ay ñoom booy melax ak yi détails yu demee noonu. non mhm. bëreeg Kaaw Cissé dama bëreeg mbay Dia Diop daan ko bëreeg Kaaw Cissé perte ci combat boobu noonu. ma bëreeg Goro Sock ci arena tour bi ma perte tamit combat boobu noonu. après ma daan booy melax daan ay kara doole. bi ngay bëree euh, euh, ak ak Goro Sock da ngeen bokkoon poul dañ leen a nommé. non dañoo tegoon combat nommé. mu daan la waaw nga jóge fa bëri kan. ma jóge fa ci Goro Sock ma xool. bëri nga fi suma juma ak Cobra wala mu bëree woo Cobra. waaw boobu man ak Cobra bi après la après maama yaa laa ci bëreel ñàkk. Mhm. ma bëreeg booy melax da non waaw Cobra boobu nga wax jiitu boobu Cobra bi moo jiitu boobu parce que Cobra ñu ngi ko bëree woon yoof. waaw yoof lañ ko bëree woon combat bu métti bi. Mhm. waaw combat boobu la après ma bëreeg Gora Sock perte bëreeg Cobra perte ma bëreeg booy melax daan ko daan Tafa leer daan Kara doole. Mhm. lu lu jiitu Tafaale ak Kara Doore Mama yaa bëri ngeen. waaw. yaakaar dem Demba Diop ngeen bëree woon. Demba Diop lañ bëree woon waaw. Mhm. waaw mosoo dem ba découragé ci làmb. yéen bi boo ko doon am doo ba découragé. waaw man nag bokk naa du ma la ci maa gën a gëm yàlla ci mbëri mais bokk naa ci ñi ci gën a gëm yàlla. parce que man dama mës a am gëm-gëmu ne dama koy wax chaque jour mës naa ko wax benn paar room ma naan ma loolu waroo ko wax parce que ñi lay seetaan da leen war a gëm loolu da ngay daan ma ne ko aw ma ko moo tax. dama ne ko man li nga xam ne man maa man maa ko war a def ci làmb ci lépp dama koy def amul lu ci manqué mooy bu ma simmeekoo ñu xam ne café wu ma combat bi bu ma ñëwee lii tax amateur yi toog dinaa ko def bëre daan ak daanu yàllaa ko yor mais li ma yaakaar ne mu ko defee am ndam dinaa ko def. Mm. c'est-à-dire nag kuy wut kat boo demee teg la yenn defet yi di am benn période boo xam ne day métti trop trop trop trop trop day am période boo xam ne da ngay wéet yow dong lay doon mais après nag foofu la ñuy xamee jàmbaar. sa gëm-gëmu bopp sa sañ-sañu bopp yow nga war a mën a taxaw xam ne défaite yii ma am nii man maa dem bëre li ma daan. xëy na bu ma bëre woon li ma war a bëre duñ ma daan xëy na bu ma entraîné woon li ma war a entraîné duñ ma daan xëy na bu ma ñaanlu woon fa ma war a ñaanloo duñ ma daan mais comme loolu yëpp dal na ma bañ daan ma léegi nan laay def ba yii di ñëw maa war a daan. Mm-hmm. nga dem waajal ko ni nga ko war a waajalee ñëw taxaw. Mm-hmm. loolu rek la du leneen. ayca mobile ñu dem léegi ci page 3 bi defal nii rido bi rido ku ñem jàkkaarloo xam ne jëw a dàq loolu la fa. <laughs> waaw boo mosee jàkkaarloo rek xam ne jëw neexul de. waaw <laughs> coow laa ngi nii de. fii la 25 coow li fii la. waaw fii lay doon bu soobee ak buur siin. waaw fii de le 25 lay doog a am bi ko inauguré ba tey. ah waaw ah, mosoo fi bëre. non le 25 la arène bi di doog a kon la ñu cinq li fi awoon yëpp ay bëre la. waaw làmb ji la. ak li fi jot a jaar ci ambiance. lépp bëre la ci xeex. lépp lépp bëre la mbot xatar bi nga ni. le 25 la làmb di am arène nationale. inauguration bi le 25 la. yaa ko inauguré. waaw maa inauguré arène bi. yaa ko inauguré wala wala Bour moo koy inauguré. maa inauguré arène nationale le 25. Hmm. kon yow la nga waxoon jógo ci la moo waxoon jógoo ci ba léegi. li ma la waxoon mosuma see jóg. ni soo màttee ngemb bi sax. bu dagul ma daan ko. wóor laa lay wax. jëli naa ko nag fekk ko fekk ko bari ñi hmm. mu nekk ci forme bu doy waar. waaw macha allah loolu lañ loolu lañ koy ñaanal parce que damaa bëgg bu ñu ko daan bu ma ko daanee rek ñu xam ne daan naa jàmbaar mais c'est juste bu ñëwee ñu ne parewul jekkul ma daan ko it mun naa indiwaat leneen. Hmm. ay bi mu koy daan parewul bi mu koy daan lii bi mu laa parce gis nañ ko fi ci combat yu ne. waaw mais dañoo bëgg mu jekk mel ni mu war a mel. combat bëggu ci lay daal bëggu ci lay yow. waaw bëgguma mu am lay. lan lan moo tax nga décidé noonu. waaw c'est juste ni nga décidé ci combat bi lan la mobile. waaw du dara est-ce que bu bu génnee sa diggante ak buur siin hmm. mobile dina appliqué dox ci kaw buur siin fu mu nekk ci géew bi mu fekk ko fa parce que arène nationale bi moom yaakaar naa ne mbër mënta daw ba génn géew bi ah gaw ma ah. li bari na wax ji bari na li ma waxoon dinaa ko waxaat mosuma bëre ci làmb ba génnal nit géew ah. wala nit bëreeg mobile duma ko signature naag mbër mu wax lu ne hmm. dinañu xeex dinañu rayante leen li mais képp ku ma signature bi arbitre sifflé bëre nga wuti hmm. li ma waxoon dinaa ko waxaat bëre daan ak daanu yàlla moo ko yor mais li ma xam ci sama bopp xam ko ci buur siin bu ma jàppee ci ngembuli daggul ma daan ko. doole nga ko ëpp xanaa. non du doole du dara mën na bëre rek doole la te moom mun na bëre kon ay doole yooyu noonu tam ci. mais lan moo cest à nag làmb dafa dem ba nekk benn affaire xamante ni tegatuñ ko fi mu war a tege looy wax sax dañ naan kii mystiquement daa pare. fa wala lii wala laa. waxuma ci ay mystique waxuma ci ay lenn teguma ko ci fenn dama kaa teg ci man li ma mën. li Bour Sine ma seetaan ko mu bëre. ma xam man li ma mën seetaan ko xeetu bëre bi muy ma xam xeetu bëre bi nekk ci man ma xam ne kii bu ma jàppee ci ngemb fu ko bëgg a awale ko fa awale hmm. fa laay waxee mais buñ ko teg ci ay mbokk yeeg ay lii ay laag ay lee ba nit ñi di ko yóbbu fenn fi naan ay li nga wax bool bool li nga wax lii non loolu du làmb ah. foofu man ak buur siin la dëgg du bawol bawol yeeg lii wala lay la man ak buur siin ñooy dugg ci géew bi hmm. bu ma jàppee ci ngemb li daan ko moom na am détermination ne kii dina jàpp sama ngemb te du ma daan te bañ koo yóbbu feneen ak feneen ak feneen mais mais nag Bour Sine xeexkat la de ak lu mën a xew moom moom bu arbitre sifflé moom kurbañ day tàkk moom. loolu kenn mënu ci dara lu mën a xew ba mën a xew ku bëreeg moom xeex. te pare nga pour samp jaaga ak moom fii. déggoo ñaari ponkal dóorante ba kenn toog. dama ne la lu mën a xew ba mën a xew ku bëreeg Bour Sine xeex mais na ko dëggal ni mu ko daan dëggalee bu mu ci changé leen. bu xeexul ak yow bu xeexee yow dafa mel da nga yaakaar day woore parce que tamit gisaguñu mobile xeex xeex xeex bu méttee métti métti ci la. moo tax ma ne la na ko dëggal ni mu ko daan dëggalee bu mu ci changé leen moom dafa nar a wane boppam le 25 juillet. bu ci changé wul dara ñim daan àndal dinañ ne kii nax nañu waxuñu woon lii. est-ce yow naroo ko woo ci xeex bu xeexee nga jéem ko nax jàpp ko. bëre la lépp mun na cee nekk mais dama ne lim daan bëre bu ko dëggalee changé wu ci dara fii mun nañ fee bañ a yàgg. te bu la woowee ci xeex doo daw xeex bi yow. Ah, am na am naa kersa boobu noonu jomb naa loolu ci làmb. ah yow mobile bi nga fi wax ne da nga koo nar nax nga ko nar a def de fii ñoom Mama Lamine jaar ak moom fa nga bëgg a jaar ak moom. woo yooyu sax man moom ñëpp xam nañ ma nii laa mel nitu kàddu laa wax ci sama làmb loolu laa gëm. des fois sax nga mais man chaque noonu ma yàlla bindee. Hmm. barki dee ma toog naag benn waay di waxtaan mu ne ma que moom deful loolu fu ñu ko lii lay wax lii lay wax man leen non moom comparaison boobu la am. Hmm. mais man chaque jour damay lit damay xeex benn affaire mooy dafa am ñoo xamante ne dem nañ ba ñoom Lamine ñiy liggéey ci làmb sax ñoom nawloo wuñ leen parce dañoo jàpp ne ñoom Lamine dañ gis liggéey baax yëpp di liggéey ci làmb parce dañoo jël làmb yóbbu ko ci secteur dof ne yëfu dof la léegi nag ñooñu bu ñu toogee di gis ñi nga xam ne ñoo tax ñu naan làmb di def yëfi dof wala ñu koy wax dañuy am chaque jour dëgg mhm. mooy bu ñu waxee ñi tax ñu naan làmb mooy mbërum làmb mhm. man Bour bu lekkee sama avance ma jaral ko xëyatul liggéey na ko àll ba mbokkam mu mu yaakaar yëkkati ne la bu mais daa yëpp ay mbokkam. waaw ku mbër est-ce que jar na yëkkati say mbokk. dëgg la man roi des arènes laa jàpp ne laay bëreel ma xalaat ne ma fa demee am dem naa kon yaa ngi dem rek. waaw. di du yéeg du kese contact commencé ko. waaw ñu ngi contact parce que dañoo am ay nekk ci yu bari moo tax il faut ñuy contact. bëreeg Bour Sine lan la laaj poids mu bari. wala non bëreeg laaj na nga pare rek physiquement pare physiquement wax dëgg yàlla loo yor ci poids yi dina nga ko moom parce que man loolu rek moo ma intéresse làmb man poids yi gars yi di wax ci man yëpp mun naa ko bañ a yëpp parce que lu ma ci yor rek naa ko moom. Mm-hmm. bu ma simee ko daal ñu xool ma naan kii fii daa néew ci moom wala fii wala fii. Mm-hmm. te yàlla dimbale ñuy mosuñoo simee ko ci làmb nit taxaw ne kii da doon fooyee làmb ji. Mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla mu continuer. ambiance ku la xam xam la ci ambiance waaye moom tamit ku ko xam xam ko ci ambiance. nan mm. lañ a xaar tey ci mobile parce que yéen ñaar yéen ay mbër yi nga xamante ne tey fekkim ko bëggee ko bëggee gis le 25 juillet mm. nañ ko xaar ci ñaar waaw xam nga nag man làmb fecc naa ci lu ne. mais bu ma la waxee ne la le vingt cinq juillet la ñuy intégré arène nationale mu am làmb war ngaa xam ne le vingt cinq juillet arène làmb dina am fii nii lu dul làmb di ko fi gis ku ci dugg ci nu la mobile ba pare mun ngaa dem ñibbi. est-ce que cosaan ngeen di 100 pour moo tax ma ne la làmb le vingt cinq lay am fii am ah, man ñëpp xam nañ ma li may def bu ma ñëwee pour fecc dama koy wax ba mu leer dama naan la bu ma ñëwee arène nationale dinaa fecc ba réew mi jóg taxaw mais amatul lu ma ciy wane. ndax ku ne xam na ne boo ne mobile dañ naan ku mën a fecc la ku dégg la. mais dafa am lu amateur yi xamoon ci man te gëj koo gis dama leen ko war a indi la vingt cinq. incha allah. ok loolu am na solo léegi nag dañuy dem ci page 4 bi ndax yaakaar naa ni li des ci waxtu bi bareetul analise de combats combats yi nga bëgg nga analyser ko nag mooy yee am ca bës ba Marley nu mu tuddate Paul. lu waaw waaw mooy Paul noo gisee combat boobu. Marley ak Négorél. waaw amul amul solo pour muy am arbitre combat boobu. jarul arbitre. jël ba day leer. ah ñoo bokk li ñuy wut. lu mu am ci àddunaam ku jël tànkam lay wër. waaw te Marley lu mu am ci àddunaam ku bëgg ku jël tànkam lay seet. waaw jar na arbitre. Marley bëgg nay tànk torop moom tamit. torop Paul loolu rek lay seet ku ko def. wax nga combat bi lu mu am ci àdduna ku sàgganee ay tànkam mu jël ko lay xool. waaw. Paul lu mu am ci àdduna mbër muy jël tànk moo ko gënal. waaw aajowul arbitre. moo tax Marley ma gis mu ñeme mu ñeme mu ñeme nekku réel. waaw waaw parce que daa bëreeg mbër mu parce que moom ñi muy bëreel dina jël seen tànk te ñooñu bëgguñu ko jël seen tànk kon moom pour mu jël tànk yi day rayante ba bëgg a dee. dëgg la mais Paul nag da ko du la fekk ndax moom moo la koy yombalal. moo tax xëy na am ci confiance. ah léegi tànk yi mu daan jël. Hmm. di jaar ba mu bàyyi jaar sowet hmm. bëttal est-ce que ñooñu ak ak ak ak nekku réel benn lañ. ci qualité. waaw moo tax it Paul est ce que ñi daan jël tànkam. ak Marley mi war a jël tànkam benn lañ. parce que bul fàtte ne kee daa mën ko jël tànkam trop. waaye kii daa mën a jël tànk lool. Mhm. te làmb dañuy wax ne lu nit mën bokkook moom. mais ñoom ñaar bu fekkee dañoo bokk luñ mën nag. dañ fay daje ji par force. bokk luñ bëgg. waaw bokk luñ bëgg dañ fay daje ji force. kon combat bu gaaw ngay xaar foofu. bu gaaw. jëli bu leer. naa ñi kay. xaaroo ci xeex xeex. du ci bari. parce que euh, nekku réel tamit bëgg na xeex. bëgg na ko trop waaw. mais du gis ñu ko muy xeex bu set mais bëgg na ko. Mm, mais du ci bëri combat wu xeex bi du ci bëri. Hmm. Mm. kan mooy favori combat boobu. favori ah bu ñuy wax ci làmb de gaa yi mun nañu wax ne Paul Néko mooy favori par rapport ak adversaire yi mu bëreel. Hmm. Mm. beneen combat bu fa a dox Adama Diouf ak Wule ca bés ba la. <laughs> Adama ah, waaw moom maanaam. communication am dafa am ci benn catégorie boo koy ko quoi. mais bu buy bëre bokkul ci ñooñu. waaw mun naa daanu ku ci bëre. mais nag buy communiquer mun nga xaa yóbbu ci benn catégorie gi boole ko si ñooñu mais bu ci bëre desee saay saay la de. Hmm. mun naa bëre lool. amul lu mu war a moytu ci wulli. loxo yi. lu wulli moytu ci aadama ji. <laughs> mu moytu aadama rombaay loxoom ndax bu ko rombee boo moytul. <laughs> mu xool fu muy tëdd. <laughs> wala moo rëtti féewu aadama dem ñibbi de. combat jaay pare gi ma bëgg nga ñëwal ma ci bo noonu. <laughs> Omar Diop moo ko tuddee combat jaay pe rek Malick Ndiaye 37 fu Buur Siteu. Malick Ndiaye 37 fu ah. làmb ju neex la. Malick Ndiaye moo la njëkk ci làmb de. Malick Ndiaye waaw moo ñu njëkk ci làmb moo njëkk ci mm. làmb. Mm. waaw sa suuf rek moom ndaanaan la parce que biñ koy mujjee seetaan muy bëre da daan daan ay jël yu spectacle. waaw yu doy waar sax ma. Mm. seetaan nañ ko. ah moom it ñëw na dem na ba làmb am fu mu ko toll am ay xale yi décalancé ñëw. am benn style bi mu amoon. parce que làmb am na benn style boo xam ne boo ko amee rek amal nga njukkal bàcc seeraas. am na yenn lug yoo xam ne boo ko ñëwee ci làmb. Mm-hmm. yàlla la dénk wërsëg rek amel nga njukkal bàcc seeraas moom moom mooy ki innové lug yooyu noonu. ñëw am benn tolluwaay bi am benn dayo bi. mais am lu mu incarné quoi ci ay kàllaamaam ci style am ba jël li mu war a jël ci làmb. Mm-hmm. tey tax na képp ku amoon tolluwaay boobu wala nga am style boobu noonu yow sa xel si la doon nekk lu bokkul indi na ñëpp. look boobu noonu ak style boobu moom moo ko indi ci làmb. léegi nag ñoom dañ ñëw ci slogan boobu noonu génnuñu si. mais Bour Siteu moom adversaire am sax sorewuñ. sorewuñ sorewuñ. sorewuñ mais Bour Siteu tamit faa mu xam ne ki muy bëreel moo ko jiitu ci làmb tuuti mu joxaat ko loolu ba mu mat sëkk. delloo ko ko parce que tamit wax ji bëri na boo waxee day kii boo waxee day laa mais si Siteu dafa war a ñëw ci làmb ji ak beneen facette. parce que seetaan naa ko yaakaar naa arène nationale la mu bëre fi bëre bu doy waar boo xamante ne nii mun naa daan ku ne. ndaanaan la c'est-à-dire jëmm ji nag mun na lay tromper ci boppam quoi mais ndaanaan la. Eumeu Sène junior Kalmu Ndour. waaw Eumeu la boo xamante ne nii kenn ki mi ngi compétir simple chaque instant. xëy na mun na am repère yoo xamante ne nii kenn ki mun na koo bañ a mais tamit Eumeu Sène junior ponkal la moo xamante ne nii nii li mu bëgg a bëri ci ponkalam lay bëre gis nga ponkal bu doojul day naxaree daan. dooj lan mooy exemple bi mu la mën a jox mbër mu joŋee moo xamante ne bu jàppee lu ne dina ko def ponkal bu ko loolu dalul rek mun naa daan ku ne. Hmm. gis nga ponkal mu yar bëre. muy def lu leer. waaw moo xam ne dafa yar bëreem ba mu yaru la dëgër dë bu doojoon bëri defet mais doojul jéemul lu mu mënul li mën lay def. lim mënul ku ko ci woo du la ci fekk si ne stade bi yëpp ànd jóg taxaw naan wu du fa dem mënul loolu. Mm-hmm. li mu bëgg a def lay def li mu mën. Mm-hmm. loolu mooy ponkal mu doojul Eumeu seen junior doojul moo tax des fois juumloo ko day xaw a métti parce que centre de gravité bi ko yàlla may la. Mm-hmm. en plus pois bi mu ciy indi te tamit day xeex. mais Calme Ndour tamit yaakaar naa te fi ne nii weesu na fu ñu koy waxee kii poids bii la am wala centre gravité bii la am wala lii wala lii parce que kuy bindu ci ay tournois lu 100 façon taille bu ne façon xeetu bërekat bu nekk leneen loo xam ne leneen la. ni nga sañ taxawee ci bëre simple doo ko taxawee ci bañ a ni nga mën a comporté woo ci bëre simple doo ko comporté ci bëre dóor. loolu leneen la quoi. mais nag xëy na moom am pour leen pour war leen andi fii le 25 lan ngay wax sa nawle mbër yi ci war a bëre yëpp lan la amateur yi di xaar ci yéen. waa li amateur yi di xaar si ñun dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñu fexe ba ñun bu ñu fi ñëwee satisfaire amateur yi parce que tamit am na yenn làmb yu yàgg yoo xamante ne amateur yi toog di ko xaar wax ci boobu ba léegi. Mm-hmm. li des rek mooy ñëw bëre ko ni ñu ko war a bëree. def ci li ñu war a def en tamit def tout ba remplir stade bi mbëri jéem a mobiliser. que tamit ay promoteurs yu bees lañuy doog a ñëw yoo xamante ne nii. Mm-hmm. maanaam neewul neewul par force dañoo war a gagné mais waruñoo perte mm-hmm. du par force dañu war a gagné mais waruñoo perte parce que dañoo war a am courage ñëwaat. Mm-hmm. te départ moom pertement fu mu ci am courage bu ñëwaat 100 pour cent mënu cee nekk mën nga am nag courage bu ñëwaat mais doon 100 pour cent dañoom dañoo war am courage bu ñëwaat 100 pour cent courage bi leen indiwaat nag mooy ñu def tout ba ñoom du ñu perte mais nañ def tout ñoom ñu am làmb neex mm-hmm. nañ def tout ñoom ñu am làmb xam ne dina bokk ci làmb waxtaanee ci saison bi mm-hmm. te loolu nag ñoom mënuñu koo def ñi ko mën a def mooy Lutte TV mu yor communication bi ak mbër nga xam waaw xam nañ ko waaw. ak waa rent de rent Dakar. Mhm. Fallou Ndiaye ngi noonu CNG moom moo fi taxawee gars yi foog ñuy romb di ñëw rek Tap Tap Sène. noo gis waaw Tap Tap ah. Sène de daa nekk benn transfert d'argent boo xamante ne nii tellement ko noppal na suñu mbokk yi nekk bitim réew benn xeetu noppal boo xamante ne nii da doon doy waar. Mm. parce que yàgg ngaa nekk bitim réew war a yónnee sa yaay xaalis mais tellement que maire bi na am benn âge boo xam ne fa ko waroon dem di jëli jee jafe-jafe yam fay am wala ay dem ñu naan lay connexion bi doxul ak ay yeeg ay mais bii loolu mm-hmm. parce que bii tellement da envoyé maire bi mu ne teel ci compte orange mu ne rek max bi jeex moom fi mu toog lay toog utiliser boobu ah. risque la rek parce que ay coono ngay ko nit dund rek ba pare deux deux euros rek ngay fay. mille trois cent. waa des fois du ko mat. Ah. <laughs> du yegg mille trois cent sax. jàmm nga ci tab tab seen de. jàmm nga fa de wax dëgg yàlla. Eh, rente de gaar dañuy loué ay oto ñoom tamit. waaw ko xool bii ñu oto boo bëgg boo demee foofu. ñu loué ñu loué la ko. waaw loolu moom yàlla def na ko ndax boo ci xoolee ci bii ñu toog rek war ngaa xam ne yeneen ak yeneen fa. waaw waaw parce que tey li ñu toog bu ñu waxuloon nit ñi oto la sax ñu bëri mun nañoo bañ a xam ne oto la. Hmm. yii nag la ñu yor ak yeneen ak yeneen. vraiment ñu nekk sponsor ci journée bi. Hmm. di leen ñaanal tamit ñoom vraiment affaire yi gën a jëm kanam quoi. cotagem bi jaay yàpp bi tamit vraiment. moom lépp lay jaay nekk ah. grossiste. boo soxlaa nag anca mu indil la xar tul ginaar lépp. waa Jimbo Codazel. Codazel ñu koy wax Jimbo sama benn grand frère moo ko jiite moom it. Ah. nekk kii bi. ñu koy ñaanal tamit moom it affaire bi wër réew mi wër àdduna. waaw ah. tamit travers Lutte TV tout est possible mun na nekk. ah te tamit am na débiteur bu nekk fële. waaw waaw yii dem naa fa jaar jaar naa ci ruq boobu. nee ko débiteur bi xam nga fu nit ñi mën a ñëwee. Eh, ruqe na waaye ruqe na de waaye gars yi dañ fay dem de. <laughs> ak ñu kaa xam. boo soolaa xar xar àñce. Hmm. soo ko woowee mu mu lakkal la ko indil la ko. incha allah rabbi gis numéro bi noonu. numéro euh, Jimbo borom runkum daje. moom it kontaan naa ci yow léegi dañuy ñibbiwaat Grand Yoff mais avant ñoo ñibbi. dama bëgg nga tàggatoo woo say mbokk tamit woo surtout say supporters ndax le 25 juillet incha allah fii ci arène nationale bi bëgg nañ mu yëngu waaye nag drapeau xew-xewu làmb ji le 20 juin la incha allah ñoom Cheikh Bass ñu ngi koy waajal ñoom Max Petit Max ak ñoom Abdou Xarim Lo le juin xew-xewu làmb yaakaar naa bu ñu leen tuddee drapeau loolu jaadu la. waaw xew-xewu làmb bu ñu leen tuddee drapeau jaadu na. Hmm. wax dëgg yàlla xam nga tamit dig dafa am ñoo xamante ne c'est juste faaw làmb di leen bàyyi xel mhm. parce que ay nit lañ yoo xam ne amuñu fukki dërëm ci làmb mais bëgg rek moo leen ci bàyyi mhm. da dem ba yow da jël sa tur bi la sa bàyyi tuddee dàkkantalee ko beneen mbër mhm. dooli ko ci bëgg làmb rek la du leneen ba ci mbër moom bu bàyyi woon làmb da koon ne da nga gis ku taxaw naan man bu diw bàyyee ma bàyyi seetaan mais làmb ne ci yow parce yaa mais loolu bëgg làmb koy def kon ñooñu waaw lu ne ngay dégg ah, kon tey ñooñu ay aw amaak lu ne tey ñooñu tey ñu toogee ba làmb ñu tuddee leen ko wax hmm. dëgg yàlla jaadu na te kuy mbër te disponible war ngaa dem gunge leen fa te xam ne ñoom it ñoo bàyyi ci làmb ji. dëgg te dañuy monter seen affiche yu rafet dugal. dugal te dama lay wax ne journée fees na fi ba taay te du ay supporteru mbër ñoom dong lay doon. Mm-hmm. Mm-hmm. kon ñooñu yore nañ neex rek da nga ciy ñëw garab boobu ñu dem <laughs> loolu moom du problème <laughs> kay lépp la ciy am <laughs> moom neex naa kii wax dëgg yàlla ñu ngi koy waajal moom it bu baax ndax moom it dafa am ñoom mooy li ma la rek ñooñu ñëpp làmb daf leen war a delloo njukkal c'est-à-dire il faut que làmb ñuy encouragé il faut que ñuy encouragé maanaam encouragé mooy dangay xool benn Lamine nga ne Lutte TV fan la déparé mais pourtant bi muy départ ba tey booy bi moo ci nekk mais ban performance ngay gis si booy bi nga xool ko xam ni kii ay tànku kanam la ñu koy dooleel làmb di ko sargal mais bu ñu bàyyi ba Lamine jël benn âge bi wala ñu naan une semaine ko dese pour mu retraité wala yàlla na yéex dee na ñu ne drapeau Lamine bi wala sargal Lamine fii wala lii buñ ci xaar loolu. nañuy sargal. la nga ku dul sant nit doo sant yàlla. Mm-hmm. bu lépp weesoo lépp weesu. Lit TV am na lu mu dolli ci làmb mais Lamine am na lu mu dolli ci Lit TV kon Lamine am na lu mu dolli ci làmb parce ñoomi neen la. Mm-hmm. léegi nag gestes yi mel noonu faaw làmb di ko saluer léegi nag nekkul làmb mu ngi koy saluer mooy mobile toog ah, li ñuy liggéey rafet na mobile ngànkul làmb am na ñoo xam dañ leen dénk làmb pour ñu ngànk ñu ngànk ko ñooñu at bu lépp weesoo da nga gis ñu toog di def remise lii remise lii remise lii remise lii loolu ay lit TV dañ ciy am part. Mhm. dañ leen war a woo moom it ñu ciy am li ñu moom. Mhm. di ci jël seen i trophée bu dee enveloppe bi ñu jox la ñu jox leen seen wax ju neex ñu dem ak moom. jërëjëf da ciy am solo. macha allah kontaan nañ ci yow looy tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo mooy di sant yàlla rek di julli ci yonent bi di jox amateur yëpp pour rendez-vous 25 juillet di ko jox képp koo xamante ne soppee mobile dëng ak di ko jox képp koo xamante ne doomu Grand Yoff nga di leen wax ne nañ ñu ñaanal sortie ni mu demeegum neexul kenn mais ñi ngi ñaan Fourrière mi ngi ñëw le 19 ñu koy ñaanal suñu borom defal ko ndam lu kawe njootam mais di wax képp kuy doomu Grand Yoff nañu waaj le 25 juillet di ko wax waa Senzala woo waa Open Diop Boronson mafia bi yëpp bàyyiwuñ fenn fenn fenn fenn fenn di leen wax ne nañu waaj yal mbin bi mooy jóg borom dëkk bi ah. waaw borom mooy jóg Ah, te bu ma jógee waaw bu ma jógee rek ñu xam ne yàlla mbir bi jóg na. dafa leer. aywa man nag yéen wax ngeen seen sponsor waaye man foog ma tudd sama sponsor Welma boutique man moo may génnee fii. gis nga costume yu naaj may sol. mais Lamine boole ma ak Welma. Welma amul benn boole lan. non non ci yow tamit. déedéet bind yee bokkul nag kookali du élevage. xanaa loolu waaye Welma boutique rek. kum jaayul baaxul. bind yi bokkul nag kum jaayul costume. mais Lamine boole maag Wélma damaa war a laal yii de. yeah vraiment rafet na trop. Wélma bi moom tamit ñi ngi dégg ay rumeur am. waaw ñu koy encouragé. Mm. di ko wax ne ñi ngi dégg lépp ñi ngi yéeg lépp. waaw mais li liñ ci rombagum lépp it rafet na ndax buñ ko doon déglu it buñ doon dégg ay rumeur am te liñ ci romb dañuy gis ne fii am na heure léeg léeg lii dañ koy wax bi wér. Hmm. marchandise bi yàlla yàlla mën na ko yàlla na ko defal quoi. moom kay lépp ci ci ci moo tax ma ne marchandise bi rek gaaw. <laughs> waaw mi ngi Sacré Cœur 3 derrière boulangerie zone. Hmm. ko ñu Mbaye Dieye Faye numéro téléphone 77 555 21 ñu ngi jox ñëpp rendez-vous beneen yoon incha allah ak beneen mbër pour le 25 juillet.